Safina FM 98.2, la religion et la culture au service du développement. Le poids de chacun de nous pour le bonheur de tous, la solidarité à l'état pur. Safina, système d'appui à la formation et aux initiatives nouvelles en Afrique. Safina FM, retour aux bonnes valeurs. Formation et éducation, éveil des consciences. Assalamu alaikum mbokki jullit yi mbokki Safina FM 98.2, Radio 2 askan wi indilati leen bu wax Tangamu Sénégal ngeen ciy dalal borom xam-xam yi xam-xam màcc ci fajj ak ñaan Yalla ñu gën leen min ci tous les jours du lundi au vendredi 13h 14h ku ci bëgg participer wotel ci 33 867 52 52 33 867 52 52 wala nga def 77 316 29 28 77 316 29 98 Safina FM أعوذ بالله من شر الكفار ومن شر النصارى ومن شر سلاطين ومن وزير وجن ثم ذي حقد فم وعين وحين وشياطين وظالم ومنافق وذي حصد ومن تفسق يا رحمن نجينا من النصارى ومن خفوا طريقهم يا الله يا حي يا من قال أدعوني إني دعوتك ذا خوف فقز بيدي يا جعل الحال بين الكاف ونوني السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته بوك أوديتر أوديتريسي دغلو سين راديو سافين اف ام 98.2 نيغي لين دي نويو دي لين زياره دي لين نيانال جام اك سلام اك توفيق تبارك الله نيغي نويو دي زياره al imam Thierno Hamidou Roban di ko ndokkeel di ko ñaanal yal na yàlla mottali yéene yi ak taxawaay yëpp macha allah di ziar itam suñu directrice madame Gange ñu Maba di ko ñaanal mu itam tawféex mu mel ni nag tey ñëw nañ ci seen émission bi nga xam ne mooy kàngami Sénégal kàngami Sénégal nag buñ ko waxee mooy dañu fi dalal ay borom xam-xam yi nga xam ne kenn ku ci nekk ak xam-xam bi nga xam ne moom la ko yàlla dénk tabaarakallaahu ñi ay kàngam yoo xam ne ñi ngi ci biir réew mi di Sénégal ah, tey ñu am ci koo xam ne ku spécial la ndax li ñu fas yéene waxtaanee bu ñu duggee ci waxtaan bi di ngeen xam ne ku xam li muy wax la ku maîtriser itam li nga xam ne moom lay wax la muy euh, Serigne Tafsir Thiam Serigne Tafsir Thiam nag mi ngi dëkk fële ca Parcelles Assainies unité 10 euh, unité 12 ca terminus Tata yi euh, moo xam 26 la wala 25 wala 2 bi la bu ñu waxee terminus Tata bi nag ñu bari xam nañ ko nekk ci wetu école publique bu Parcelles Assainies ca terminus Tata bi yor itam pharmacie Chifa kon nag laata ñuy dugg ci waxtaan bi dañu koy bàyyi mu nuyu ak mbokk auditeurs auditrices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 ci rajo Safina FM incha allah ànd ak suñu mbokk mu baax muy Cheikh Tidiane mm-hmm. incha allah Cheikh Tidiane Diop si laaj yi ñu nekk si tontu yi incha allah li si rafet rek si yàlla la waaye lu si ñaaw si ñun la mm-hmm. ñu ngi ànd ak yéen comme si xam-xam bi ngeen xam incha allah sañ Cheikh dina si ñëw léegi si lépp lu mu laaj ñu jéem saa tontu la ñu xam mm-hmm. lañu ñu ñu bàyyi ndax nisful ilmi la adri kenn wàllu xam-xam mooy xaw ma incha allah ñu ngi nuyu ñëpp waaw tabaarakallah barakallah sëriñ Tafsir comme ni ñu ko waxe it nga bokk yow ci kàngami Sénégal yi tabarakallahu yàlla itam dénk la ci xam-xam bi nga xam ne moom la ñu fas yéene waxtaanee ci jamono nag sëriñ Tafsir dañuy faral di dégg lu ñu lu ñuy wax asrar mag ñaa ngi koy dégg ndaw ñaa ngi koy dégg am na ci ñoo xam ne nag xëy na baatu arab bi dina leen jaaxal wala buñ leen koy tekki itam tekki ba dafay des lan mooy asrar sëriñ Tafsir. waaw sëriñ Cheikh. ah baat bi ñaar la mhm. ñaari kalima la mhm. dafa am lu ñu tuddee asraar ak ashraar mhm. asraar mooy tudd siru waaye boo ko defee asraar moo lay jural ay ah. si biir asraar mën nga see am ay ñaata nit ñoo ne si mbedd mi te fekk asraar a leen dofloo ñaata ñoo sank fekk loolu la ndax xamuñu ko moo tax awalan li war mooy nga xam lan mooy asraar bala nga koy jëfandikoo asraar mooy sirru jam am sirru buñ buñ ko defee jam asraar mhm. mooy ay sirru yoo xam dañ koo dajale mhm. du benn mu nekk ci turu yàlla sirrum nga xam ko mhm. wala talsam nga xam sirrum wala xawaatim nga xam sirrum wala lépp loo xam dafa aju loolu jumlatan moom la ñu tuddee asraar lépp lu aju na ci xawaatim lépp loo xam aju na ci turu yàlla lépp loo xam aju na ci rawxaan lépp lu aju ci xuddaam lépp lu aju ci lépp lépp rek loo xam ne bii dafa nekk sekkare nga di ko jëfandikoo jumlatan loolu la ñu tuddee asraar nga xam ne sekkare la yooyu jëfandikoo ci biir jëfandikoo ko mu am am jeexital bu muy hmm. jëriñ hmm. Hmm. jeexital ba benn muy jëriñ wala muy lool incha allah sëñ Cheikh loolu moo tudd asrar tabaarakallah ci biir euh, asrar boobu comme ni nga ko waxee secret ndax mooy secret bu ñu la déey wax la ko wala daf beneen façon secret la bu bokk rek bi ma lay déey waaw secret mën na am boo xam ne da nga koy jàng ba xam ne lii soo ko defee nii def ko nii man na jeexital li nga bëgg comme ni nga xamee ni bi tey jii lii ñu nekkee ni kii ko sekkare la si moom hmm. yow xamoo ko hmm. da ngaa fekk rek ñu liggéey ko hmm. mooy kenn ku nekk asraar nag doxut ci loolu asraar mi ngi dox moom si tur yàlla si tur yàlla lay dox tur yàlla yi ngay jëfandikoo te xam ni nga koy jëfandikoo ndax am na koo xam ne xam na allah waaye xamul suru allah ah. am na koo xam ne xam latif waaye lan mooy suru latif am na ko xam ne rahmaan waaye lan mooy suru rahmaan si ki xam asraar nag dafay jël allah mu jëfandikoo sirum ba jël latif jëfandikoo sirum ba jël rahmaan jëfandikoo sirum ba am jeexital sa loola nag la muy def loolu mooy tudde asrar suru ah. loolu nag dañ koy jàng mhm. li yàlla la koy xamal mhm. waaye li li ëpp xaali ban daal da nga koy jàng dëgg la kon mooy ci wàllu tur yi comme ni nga ko waxee mhm. tur yi ci seen bopp jëmm jaa nii mais dafa am secret bu nekk ci suuf ci biir loo xam ne bi moom ki ko jàng rek moo koy xam waaye du da nga koy fekk ni mu tëral nga xam ko déedéet da ngay xam na ne sa biir ndax tur wa dafay am adat am xaraf xam adat ba am na lu muy jëriñ mhm. xaraf ba am na lu muy jëriñ mhm. boo leen boole loolu lépp heure ba nga koy sikkar am na lu muy jëriñ waxtu am na lu muy jëriñ mhm. boobaa jumlatan dafay nekk asraar ndax dafay nekk du benn du ñaar du ñett dëgg la incha allah tabaarakallaa mbokk yi ñu fàttali ne yéen a ngi ci seen émission kàngami Sénégal ñi dalal fi tey Serigne Tafsir Thiam comme ni ma ko waxee mi ngi dëkk ca Parcelles Assainies unité unité 12 ca terminus Tata ba incha allah ci kanam tuuti dinañ joxe numéro téléphone am allah moom Serigne Tafsir ci biir asraar hmm. léegi léeg ñu ñu gis ci li ñu tuddee euh, xawaatim hmm. xaatim hmm. moom lan la doon ci asraar waaw xawaatim mooy loo xam ne bi dañ ko tënk ci yaatuwaay ak ci ni gudda ñaay hmm. ak si adat ak si lim ba boo defee xaatim bët ya dafay lim ya dilon ya dafay tolloo ba nga xam ne bi benn du ëpp sa morom bu ko ëppee rek xaatim ko daf mën a ko daf mooy dilon yi xawaatim yi li nga xam ne bi mooy wax ko bi nga defar toll lenn lu nekk dafay tolloog sa morom boo limee xaatim bi yëpp ba mu nekk dafay nekk benn adat boo xam ne dañuy xam ne adat bii moo dugg ci xaatim gi hmm. yaa xam ban tur da hmm. du benn du ñaar du ñett hmm. kenn ku nekk sa mataalib ba nga am yaa xam xawaatim ba nga man sa ngay fexee ba dugal ko si xawaatim lëggéey ko xawaatim mag ñi dañuy wax ne néeg la néeg la boo dugal ganaar wala nga dugal sa bëy jàpp ga day yomb waaye xawaatim dugaluñ fa turu nit turu kan lañ fa dugal turu yàlla ah. lañuy def ànd ak siru bañ koy def boole ko ci xawaatim mhm. def sa moo tax xawaatim mag ñi ko xam mhm. lépp lañ cay def mhm. mel na mag mu baax dégg naa génn góor ñëw na si moom fekk xaatim si néegam mu ne ko ndax da ngay jëfandikoo lii mu ne ko ndax doo koy jëfandikoo mu ne ko dédd mu ne ko moo tax itam mbubb mi ngi fi andi woon daaw ba léegi moom nga fi andi est-ce que moo tax xawaatim li tax mu ñëwoon mooy yëfi taalibi bi jàng alquran jàng sharia dem samp daaraam amut nu muy def aajum faju mu jàng xam-xam asraar di faj aajum te du ñaani kenn dem si buur si buur waaye ki ko xamut day taxawalu feneen di taxawalu feneen mhm. waaye ki ko xas ba xam dafay jëriñoo di faj aajom te du taxawalu feneen loolu moo tudd xawaatim moo tudd xawaatim incha allah ci sa biir wax wax nga xaatim bu damm hmm. nan lay dammee waaw mooy heure bu di la yu tolloo rek dafa damm mooy dafa am xaatim boo ko rëddee ba noppi dafa am ay bët hmm. bët yi benn bu nekk am loo si dugal hmm. boo limee masalan musallas juróom-ñeenti bët la heure boo limee ñetti bët yi tolloowul ndax côté bu nekk dafa war a tolloo mhm. bu tolloo rek xawaatim nga day dam mhm. yooyu musallas dafa am murabba am comme ni nga xam ne ba mu jeex incha allah loolu moo mhm. tudd xawaatim incha allah tabarakallah ñu wax leen mbokk yi yéen ngi ci seen émission kàngami Sénégal ñu dalal fi tey Serigne euh, Tafsir Thiam nekk ca Parcelles Assainies unité 12 ca terminus Tata ba nekk ci wetu école euh, publique ba moom nag numéro téléphone am mooy 77 370 26 88 wala 70 707 18 18 70 707 18 18 wala 78 207 95 95 78 207 95 95 Serigne Tafsir. Hmm. ba tey ci wàllu euh, asrar li ñu de Rohan, wala wala xuddaam wala jinne hmm. dañ koy faral di dégg ci on euh, asraar. Hmm. nan nga ñu ko mëna tékkalé tekkalee mal farqu baynahum waaw ruuxaan ak xuddaam ak jinne kenn ku nekk dafa am looy lëggee. da fay joggé ko toujours ci turu yalla yi. yow mi lëggay xawaatim mhm. wala yow mi am tur yal aaju boo bëgg si mhm. bir aaju bi si ngay génne rawaan mhm. mooy lëggayal aaju bi yow yaa koy génnee boo ko dafa am yoon wooyu genni rawaan ni ma la ko mën a ba rawaan bay dund rawaan ba fay dé comme tu ma don misal tay sa carte bi nga yor muy jand si crédit numéro yang sa bir waye heure bo jëlé ba dugal sa bir téléphone ba pourtant numéro yang fa way jëriñu dara dëgg la yaa ngi dégg de numéro yaa ngi koy xool ak sa bët hmm. carte banque waaye jëriñutu dara keneen ku ko dugalaat du am jëriñ hmm, maanaam carte bi nga jënd carte crédit bi waaw nga jënd ko xoos ko waaw jël numéro yi dugal sa téléphone waaw dugg na waaw waaye teewul chiffre yaa ngi ci carte bi ba léegi waaye jëriñutul dara ah. loolu muy suru est-ce que dégg nga wax ji rawaxaan itam noonu la mel bi nga limee sa aajo ba pare hmm. aju bu nek bokut ak sa aju morom mhm. sa adat ba nga am sa ngay genn jëmmi rawan di deug la sant ko soxla bi ya xam la nga bëgg lan la mhm. waye rawan li ëpp xaaliban limi dox moy ci jàmm ci yu lay dox bu fekke nak li ëpp xaaliban ci yu lay dox si jam lay dox si jalbu lay dox si danay def itam si daf lo xane bi da fay nek luy lor su fekke nak xuddaam la moom mooy liggéey mom da fay liggey rawan si jëf ji mi jëf xuddaam mooy lëggéey rawxaan hmm. masalan bi nga lëggéey rawxaan ba noppi génnee ko si uh-huh. biir rawxaan si ngay génnee xuddaam luy lëggéey rawxaan hmm. loolu di lëggee rawxaan si li mu koy lëggee nag mooy si charru min jaanibi charri la hmm. laa min jaanibi la xayri si uh-huh. safaan la koy lëggéeyale waaye du daf koy li si yiw si safaan gi mu koy lëggéeyale nag jeexital ga muy jeexital moo xam ki def xaatim gi lan la bëgg bokkut ak jinne jinne mën nga koo jëfandikoo mën koo ñàkk jëfandikoo hmm. parce que yàlla mooy delloo hmm. yàlla yonentu yàlla Suleymaan lan la ko yàlla tàggatal hmm. tàggatal na ko jinne jinne lépp la ko tàggatal bu koy jëriñoo nit ci boppam li ko yàlla may loolu la waaye nan la xamee tàggat wa saqara lakum ash-shamsa wal qamara daa'ibeen yàlla ko tàggatal nit wa saqara lakum al-layla wan nahaara wa aataakum min kulli ma sa'altumu kon tàggat yàlla da koy defal nit yàlla dafa tàggatal nit lépp lu fi nekk nga xama nga ñàkkam gis nga dee bi ko yàllay def yàllaa koy def waaye daf na dafa am wakiil qul yatawaffakum malakul mawtu lati wukkila bikum wukkila bikum pourtant yàlla daf na may rey de xalaqal mawta wal xayaata waaye daf na dafa am ku ma leen wukkil ma leen rey li si des yëpp aw aji si ëdd adduna bi li si nekk yëpp noonu la demee nag dëgg la yow yaa xam na fan ngay jaaree mhm. bii si rawaxaan ngay jaaree mhm. wala xuddaam ngay jaaree mhm. wala si yoonu jinne ngay jaaree boo xam ne bi jëfandikoo bu doon jëfandikoo bu baax parce que jinne am na mu'min nag am na kaafir jinne bu gëm yàlla dafay dimbale nit nitu yàlla nit yàlla yi dañuy ànd ay jinne yoo xam dañuy gëm yàlla ñu leen dimbale mhm. waaye nit seytaan yi dañuy ànd ak ay jinne mhm. yoo xam ne bi seytaan la ñu dem mhm. ndax alquran dafa andi ne bal kaanu yaabuduuna al jinna aksaruhum bihim muminuun pourtant am na ñoo xam ne bi ñu baax lañ waaye am na ñoo xam ne ñu bon lañ ñu ànd ak jinne yi ndax aksaruhum bihim muminuun la yàlla wax kon ñooñu jëfandikoo jinne ñooy jëfandikoo jinne ci lu bon ah. waaye pourtant am na ñu jëfandikoo jinne tàggat leen ñu koy jëfandikoo ci lu baax القران واه لو يالا يون يال سليمان ومن الشياطين من يقوسون له ويعملون عملا دون ذلك وكنا لهم عابسين كون الشيطان يالا داكو تاغتا يالا تاغتاكو غلاو تاغتاكو ليب ني ام لي ني ني ديف ني ديف لو نيك تاغات بي بودي جيرين كون نك لولو موي فرق الفرق بين روحان والقدام والجن بن بو نيك امنا تخواي بو تخا بوك سمورم شيخ كون دال بو مولا ديغي آه، روحان اك قدام اك الجن آه، benn bu ci nekk ak taxawaay bu mu am kenn ko ci ki ñëw itam hmm. selon hmm. ni mu ñëwee ah. ak ban la ñuy jëfandikoo ci moom ak ban ngay jëfandikoo yow mi ko xam ak yow mi ko boo ah. gisee muy lore hmm. mu ñàkk xam nga oo rawaan yàq turam wala nga wax xuddaam yàq turam bu ñëwee ñëwin wu muy ñëwee dund ñu bu baax mi ngi mel ni kilifa rek nga waroon ko ooyee turu bu baax yàq turu daf naan kii daf maa yëpp dëgg la amna na way bo xane ne bi dafa ñew ci ben serigne ne dama bëgg xaalis mm. pour wan la nit ñi mm. serigne bi jox ko ben tour yalla na ko demal liggéey ko mm. waye nak ndax attention ndax bax ndax ndax man ko atane ko mëna a waaw mu leggey ko ba jinni ji ñew jinni ji ñew ebal ben talibam ne ko demal andil ma diw sangam neena dafa gis ta waa nga ñew dugg si biir negam jaarul sax ci buntu bi dafa ñew dugg ñew bokk ko comme ni ngay bokké sa lire yobbu ko ba ci ben doj mu tek ko fa mu fekk fa jinni ji serigne bu mag bi mu ñew mu ne ko may mu a ko defee ma a mu ne ko yow yaa ngi moo oo maa ngi jóge ko ba siin hmm. ñëw ba fii nga ne defewu ma dara loo may defee ndax ñemeetut hmm. moo tax ñuy bëgg nga ànd ak sëriñ bu ma sëriñ dëgg la sëriñ bu lay omat hmm. mu lay won yoon naa nga mën a waaye xëy rek nekk sëriñ amoo sëriñ da ngay xëy rek alako dëgg la wax ko wax mu ne ko defee mu dara mu ne ko delloo ko waa ji bokkaat ko ñëw nee na bi mu ne ko dëj fa la ndiggam la demee Sénégal lañ si teg mu faatu mooy tax turu yalla lorangé def ci am waaye njëriñ def ci am deug la tabaarakallaahu kon mbokk yi nga xamné ñi ngi leen di fatali rek ñi ngi fi dalal tay ci seen émission Kangami Sénégal Serigne Tafsir Thiam Serigne Tafsir Thiam nak ñi waxtaan ak mom ci walu asrar waxtaan ak mom ci walu khawatim ci walu ruhan walu xuddaam dekk ci Parcelles Assainies unité 12 ci terminus tata ba nek ci wetu école publique numéro téléphone am 77 le 370 26 88 77 370 28 26 88 voilà 70 707 18 18 70 707 18 18 78 207 95 95 78 207 95 95 Mahia Talasim Talsim euh, voilà Talsam dañuy dégg aussi ci bir asrar ñi wax euh, Talsam. mom hmm. ban taxaway la ci asrar. comme ni ma la sa ya. Hmm. nit ne nit ñi gëmuñ tur hmm. ndax heure Allah. Latif. wala rahmaan mhm. wala rahim ñaan ci yàlla mhm. sa aajo fajuwut da ngay commencé sikk da nga naan ndax allah allah baax na ah. ndax latif baax na ah. ndax rahmaan baax na ah. ndax rahim baax na te boo waxee loolu baax na rek dugg nga si kufur uh-huh. parce que yàlla nga wax ndax baax na baaxul dëgg la ñu wàccee turu yàlla yooyu si talsam mu nekk mhm. ay xaraf uh-huh. ñu def ko ay xaraf def ko adat heure boo téye tur wa nekk talsam lëggéey ko baaxut doo wax lu mekk talsam baaxut dëgg la doo ko askane yàlla waye heure boo liggéey benn tur yàlla si asmaullah usna nga xamné yalla ko wàcceel bopam mhm. heure bo si liggé sik te nit ñi dañoo tilim mhm. légui seen bakkar yi daf leena wër mhm. bay yalla ci bopam dang koy ñaan ba sa ba tàyyi mu lank liko waral moy seen bakkar yu ëpp yi ñu waccé nak tour yalla yëpp ci talsam mag ñeko def li ñu def ko li sa aaju bi nga am ñu jox la talsam waccé ko ci talsam talsam dañ koy tëgg talsam dafa mel ni ma la ko mën a misaal mu gën laa yomb mooy weñ gi nga am dem yóbbu ko si kiy tëgg mën na koo def paaka mën na koo def jaasi mën na koo def semi waaye malgré weñ des kese la est que weñ rek la hmm. tur yàlla itam ni ñu em hmm. araf yi ni ñu toll hmm. boo si am nit yàlla mën na koo def talsam waaye tur yàlla kese fa nekk mais moom ma la koy jox moo mooy xam lan la moo tax ñuy bañ jël talsam boo xamul te talsam yi daf si am yuñ folli am na yoo xam ne jeex nañ doxatuñ comme ni mu amee ci alxuraan naa si xamoon li ñuy jëfandikoo am na saxaar yu njëkk yoo xam ne kenn jëfandikootu ko mhm. saxaar yooyu baaxatul am na téléphone yoo xam ne kenn jëfandikootu ko dëgg la ndax jamono ñëw li talsam yi am na ci mel noonu la taxoon ñu defoon ko loolu weesu na yow boo ko xamul nag talsam boo dajee rek jël dangay ngay mujj nga perte sa dund jeex waaye am na talsam yoo xam ne dundatul mhm. ndax rawaan yi àndoon ñoom dundatuñ ah. est-ce que waaye yooyu nag xàmmee ko da ngay jang asraar xam ko xàmmee du lu la neex rek nga def déedéet nit ñi dañuy jël li leen neex rek asraar lu leen neex boo gisee ñu si yeete ni hmm. ñun dañuy wax ne asraar dañ koy yee pour nit ñi nit ñi dafa am ñoo xam ne bi hmm. dañuy jeexal seen dund bi si asraar te xamuñ ko hmm. seen dund bi jeex si seen bokk ñàkk leen lépp te fekk jànguñ ko moo tax koy jàngi ba xam ko incha allah tabarakallahu sëriñ euh, Tafsir euh, Thiam yàlla na yàlla mottali comme ni ko waxee ci Euh, ci talsam ma laataa loolu hmm. ñëwoon nañ ci wàllu ruuxaan hmm. waxoon nañ itam ci wàllu xuddaam hmm. waxoon nañ ci wàllu jinne bu ñu xoolee yooyu hal yustaamalu ruuxaan fil xawaatim faqat aw yustaamalu fil asma maanaam euh, ruuxaan ak euh, ndax dañ koy jëfandikoo ci ci xaatim yi wala wala dafay dem ba ci wàllu asma yi waaw ruuxaan dañ koy jëfandikoo si xaatim xaaliban waaye dañ koy jëfandikoo tur yàlla itam parce que li ngay jëfandikoo bi nga jëf xaatim gi bi nga ko rëddee ba pare da ngay génnee lan mooy rafaanam rawxaan biy dundal xawaatim gi mhm. génne lan mooy xuddaamam mhm. mi nga xam ne dafay taabix li rawxaan mhm. nga xammee ne benn bu nekk boo paree da ngay ooloo la ña ngay sant li ngay soxla soxla bi nga sant ñoom ngay sant ndax yow yàlla daf leen wakkil ñoom loola mi ngi mel ni sa booy bi nga am ci kër gi wala sa leen rek mm-hmm. nga soxla jënd dara ne ko dama jënd li ma ko mm-hmm. est-ce que tax na muy bokkaale mm-hmm. taxul mu bokkaale yàlla may ma ndox ma naan moom nga ñaan est tax na muy bokkaale yàlla na ko may ma ndox ma naan mu may la ko ndax ñaan gi nga ko ñaan tax na muy bokkaale yàlla loolu ñàkk dégg alquran ñàkk dégg diine la ba loo wax rek ñu ne da nga ñaan leneen nanga ma naam déedéet yow lii dafa lott si yaw gis nga amna borom xam-xam yu efek demé ci téré yi mm. da ngay fekk ñu né nit yalla yi bu ñuy dem diwan mm. diwan mm. amna ño xane bi jinn yi ni dimbal ñu dem parce que amuñ katnal dem waye lool ndax day tax mu bokkaale yalla déedéet du bokkaale yalla yalla yombut xam nga bokkaale yalla moy lan bokkaale yalla si lo xam bi woor na li jamm yalla nga jël tek fa benen place bu dul yalla waye tay tabax bi nga bëgg tabax lo tabax maçon da ko yalla loolu ndal na mooy kooku moo ko mën a liggéey liggéey la ko lii itam noonu la mel mhm. kon rawaan dañ ko jëfandikoo si xaatim mhm. waaye dañ ko jëfandikoo si turu yàlla mhm. boo amee turu yàlla wu nekk yàlla daf ko bind araf fu nekk laa lay wax du turu yàlla araf fu nekk yàlla boole na ko rawaan bu koy liggéey araf fu nekk araf bu ne araf bu ne ba araf yi jeex heure boo téyee araf fa di ko lëggéey boo gisee muy alak nit nga di ko lëggéey fa nga ko lëggéey setut loola boo ko ooyee bu ñëwee dafay jeexital loraange ah. parce que bi nga arah arab bi rek kooku dafay dal di yëngatu mhm. mi ngi mel ni tey ne ma la nga composé numéro bi mhm. foo ko mën a composé la yëngatu dëgg la amul beneen bu ko mën a am dëgg la numéro rajo bi mhm. foo ko la yëngatu la la araf yi mel araf bu andang am na bu ànd ak moom rawaan boobu ànd ak moom heure boo téyee tur yàlla wa rawaan wa ikut gaar si yow heure bu ñëwee fekk yow ngay moykatu yàlla ngay def katu lu bon nga daf lay fi jur jur incha allah moo tax da nga ko war a téye si lu dagan lu baax lañ koy def hmm. dañ koy jëfandikoo itam si lu sell lu baax rafaan si loolu lañ ko jëfandikoo boo ko jëfandikoo si leen day yàqu barakallah Serigne Tafsir ñu fatali mbokk yi ne yéen ngi déglu seen émission kangami Sénégal ci seen radio Safina FM 98.2, point 2 ni ngeen dégloo waxtaan bi dégg ngeen xam ngeen ni kon Serigne Tafsir li muy wax lambatu ko waaye lu mu xam la moom mi ngi dëkk fële ca unité 12 ca terminus Tata yi ca école publique bi mun nga ko woo ci 77 370 26 88 wala 70 707 70 707 18 18 wala 78. 207 95 95 ndax yi mu wax ni bari na koo xam ne mi ngi ci mi ngi nekk ci tur yàlla yi di wér wala nekk ci xaatimi wala ruuxaani lu nekk mu di ko ci wax te fekk na la muy wax wuute na ak li nga xam ne moo nekk ci yooyu ci loolu sëriñ tafsir hal yajuzu lil muslim an yataamala maahum waaw naam parce que gis nga problème bi ñu dal ñun moy mhm. dañu am xam-xam bu wër sagane ko bayyi ko tuba bi jël seen xam-xam ba jëfëndiko ko ilif ñu kon mën nañ ko jëfëndiko baax ci que li ñi jëfëndiko lepp sirru la mhm. waye ñun luñu tok ñun alquran mhm. lañu am tur yalla lañu am bayyi ko fa na li dal li war moy jang rek mo ci war ak julle koor nga am soxla lo xam noy def da nga gis ko xane bi da fay am soxla du xamul nu muy def soxla bi ba soxla faju day tuñ tuñ fu mu jëm dana ko mujj sax dugal ko ci bokal yalla ndax dana dem ko seeti ko xane limay jëfëndiko tur yalla ndax li ko waral mooy sàgganteeg jullit yi mhm. ndax yow xam nga ne njabar am na mhm. d'accord nga si loolu sa morom xam na ne njabar am na uh-huh. waaye bu fekkee ku yàq njabar amul kon fan la nit ñi jëm oh. bu fekkee nit dafa am ko taxaw fële na waroo jëfandikoo xaatim waroo jëfandikoo alquran kon kii njabar am na yow d'accord nga waaye hmm. ana kan moo war a yàq njabar jullit bi sàggan toppatoo ku yàq njabar mhm. seetuwu ko sàggan naan dafay déglu kuy wax ba musiba dal ko mujj gi dana dem dootu julli ji mhm. dootu oor ndax wéradi ndax li ko waral mooy njabar lañ ko teg mhm. te njabar gëm na ne am na parce que yàllaa ko wax ci alquran dëgg la alquran yàlla Moussa lan la wax ak njabootam yi ba mu ma ñëwee ñëw lan la wax ñëw njabar lañ ko andil ñu ne nañ nañ seet yàlla ne ma xaala Moussa maa jiitum bi sihr inna allaha sa yubtiluhu inna allaha la wax waxut inna Moussa déedéet inna allaha sa yubtiluhu est-ce que bàyyi kayf waaw inna allaha sa yubtiluhu wa inna allaha la yashlu amal mushrikin waaye yow nga toog nag kon itam keneen kiy ñaan itam dafa war a ñaan yàlla kiy def njabar bu defee njabar kiy lëggéey alquran yàq ko ndax na yàlla wax si alquran ne wala yuflihu saxiru xaysu ata dëgg la jabarkat du du mën a texe fu mën a ñëwee mm-hmm. waaye lan ngay mën a ràññee ak tamis mm-hmm. bàyyi na séer wal xaq nan ko mën a defee yow mm-hmm. comme xamoo ko yow li war xamoo dëgg xamoo lu baax xamoo ki bind alxuraan ne nga ko bind alxuraan dafay jabar ki bind talaasim dafay njabar ki bind xawaatim dafay njabar léegi kan moo njabarut yow nga ne kiy wax tafli moom moo njabarut kan wax tafli moom taflit bu mënee jeexital bind alxuraan du jeexital kon kon kon xanaa dëgg ko amatul ah, ah uh-huh. kon loolu nag kon dagan na si jullit mm-hmm. mu jëfandikoo li si yoon wu dagan bu mu leen jëfandikoo si yoon wu aram mm-hmm. incha allah kon buñ la déggee ku tur jàpp mm-hmm. njabar ak yooyu yëpp kon am na yoon bu ñu mën a jaar du jeex xam ne boo ko jëfandikoo si alquran tuur yàlla yi dafay dañ ba jeex tàkk incha allah dañ ci ci rawaxaan wala xuddaam wala jinn wala jinn wala nga jëfandikoo alquran am na yoo xam ne aayaat la moo xam ne munaasaba yoo xam ne boo ko jëfandikoo moom dong dafay yàq njabar dafay yàq lu gàllankoor nit jàpp ba amatul yaakaar foog ne mën mën waaw loolu am na yoon gis nga nit bul naagu mhm. bul naagu mhm. laa taxnatu min rahmatillah nit bu mu wax ne lii man tuta nekk mhm. adduna bi li fi nekk yëpp pour nit la yàlla def fi lenn pour pour leneen yàlla dafa def lit pour nit la moo tax mu tàggat wa saqara la ko mu chamta la wax wala xamar daay benn dëgg la wa saqara la ko mu lay la wa nahaar wa saqara lakum ma fi samawati wa ma fi ardi jami'an ko gëdë rat sut dëgg la dé li ne si asman la wax sax ak li suuf yu tàggatal naa leen kon yow nit ya dess sa itté fu mu yam rek fa nga yem dëgg la sa itte fu mu yam rek fa nga tollu itte wol lu bax itte wol njub waaye itté wol ba kenn du la lor dëgg la ku andi lor jëmee ko sa ko nga jañ ko ya fu sé doye di yonent bi alayhi wasallam daf ne wala takun yaabisan fa tuksar wala radban fa tuksar wallahi bul doye di ñak fayda ba ko dajal mu dam la waaye boy doye di ñak fayda ba ko noy itam ba ko dajal mu lem la déet na nga nek mu taw sit kon jullit noonu la war a mel mm-hmm. am fullaak faayda mm-hmm. am diine mm-hmm. di julli waaye taxaw si boppam ba kenn du ko mën a lor kenn du ko mën a njabar kenn du ah, naa di eh, li leeral am na solo lool surtout ñi nga xam ne fi mu toll nii ak jamono bi mm. comme ni nga wax rek bu fekkee nit dafa am fu mu jaar ba def loolu ñu tuddee njabar mm. kon war na am beneen yoon bu ñu war a mën a jaar ba dindi ko ba dindi ko waaye bon. ne loolu warta hmm. am musiba am musiba am kon nag bu ko defee mën naa joxewaat numéro euh, Serigne Tafsir Thiam unité 12 terminus Tataaya hmm. nekk ca wetu école publique 77 370 26 88 le 70 707 18 18 le 78 207 95 95 78 207 95 95 pour ñu gisee numéro yi ñu di ko joxe bari na koo xam ne ma nga lu ko peut-être yoon yi mu waroon jël jeex na te yeneen yoon xam ne mi ngi fi mas naa ko wax benn waay na ko man rajo bëgguma faa dem mhm. mu ne man ak dem fa baax na parce que man feebaroon naa te yaa ma wéral est si rajo laal déggee ah, amoon na soxla kon looloo tax ñu fi ñëw mooy am na koo xam ne mi ngi toog jaaxle parce que nit ñi léegi dañoo dem ba ki nga dëkkal si koñ bi sax xamatul xamatul wallaay ki nga nekkal si benn koñ mhm. ngeen nuyuwante alo alo sawar sawar gi dëgg la ngeen nekk si benn immeuble xamul la mhm. da ngeen at parce que am relation boobu amatul kon nag nit ki war na am lu koy gindi du wutu sa mbokk ngay laaj bu njëkk nit daan daan dëkk ak famille mhm. bu jaaxlee baay ji jóg waaw wala yaay ji jóg mhm. wala bàjjen ji jóg mhm. wala mag jóg di kenn ku nekk léegi appartement nga wut yow kenn yàgg sa jabar nga am jaaxle xamoo foo koy diisee ah, kon musiba am kon ah, nag buñ leen waxal li mooy lan la pour am solution pour nit ku mën a jóg waxuma ñëwal si man mhm. déedéet yàlla ñi mu yor duñ jeex mhm. yàlla ñi mu xam ne baax nañ mhm. am nañ njëriñ mën nañoo jëriñ waaye li may nit ki tënku si loo xam ne ay waxe bolle puy de ba xëy daanu si ngelaw lay bañ dëgg kon nag euh, dégg ngeen ko ni ñu ko waxee xam naa du ñàkk euh, ci fan yi di ñëw dinañ ñëwaat ci pharmacie yi nga xam ne yaa ngi ko yore euh, pharmacie Chifa te ku ne xam na suñu borom moo wax Chifa ci alquran al ah, karim yooyu a waaye daal lu mooy loolu ku bëgg a jokkoo ak moom mën nga jël 78 207 95 95 78 207 95 95 ci wàllu asraar ba tey Serigne Tafsir. xalil asraar yaduru aw yanfa ndax asraar. dafay lor wala dafay jariñ. waaw asraar dafay jëriñ waaye dafay lor. dafay jëriñ ñaar yëpp ci biir dana la si indi ñetti misaal nga xam ko. xaaruun asraar la jëfandikoo woon. waaye asraar daf ko mujj lor. moom xaaruun waaw. بل أم إمن باورة أسرار الجفن تكون نعم. أي أسرار تكون جلور أسب برقية أسرار الجفن أسرار تكون جيرين كان نكون نكنا لا أندل نك كم نيل كان نكون نكنا لا أسرار جيرين كم قارون إن قارون كان من قوم موسى فبقى عليه وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتيحه لتنوء بالعصبة أولو القوة إذ قال له قوم لا تفرح إن الله لا يب الفرحين وابدق فيما آتاك الله دار الآخرة ولا تنسى نصيبك من الدنيا واحسن كما احسن الله اليك ولا تقلف صار في الارض اسكي با اي با جيخنا دا فا غود واي لي نجي بغي واخ موي دا فا واخ لا اي فيخو اي اي با دافني قال انما اوتيت على علم عندي أه. على عمل عندي ديدي على صنعه أه. على علم عندي كون اسرا لا جيفنديكون با علال ديكو نيو كوتي بو نيك واي مو بيو فا بقى علي آه. بيو جيم بيو سي اسرا سي لوك اسرا مو جي عليك يو مي في سنغال أمم. jëfandikoo asaar hmm. asaar teral la hmm. nga am lu dul jeex hmm. su fekkee da nga saa beew daf lay yàlla daf lay taxaw taxawaay man taxawaan xaaruna dëgg la yow mi jëfandikoo asaar ubbeeku si am si oto di si njaalu di si yàq ah. di si rey yàlla daf lay taxawal fa mu taxawal nul balaam ibnu baax wala kan la doon pexel mu yonent yàlla yàlla teg ko lam ko teg ne mujj gi kat ku yàlla lu ko alak mooy fexel nitu yàlla fexeel nitu yàlla mm-hmm. moo tax loolu yëpp dafay yàlla mujj gi saboote ko nag in taxmil ali yalhas mm-hmm. aw tatruku yalhas saalika ah, masalu xam la seen gërëmaan fax su as la am yatafakkur mm-hmm. dafa mel ni xaj ah. buy daw ma ngay baw ma ngay yalkat bu toogee ma ngay yalkat dara waral loo ko lu mayek asraar la am waaye daf ko jëfandikoo si ku bon dëgg la aasi bun barqiya asraar la am waaye daf ko jëfandikoo si ku baax hmm. ndax yonent yàlla Moussa ba mu na kan moo ayukum yatini bi arshiha qabla an yatuni muslimin hmm. kan moo ma mën andi lalam ba hmm. gàngu naay gi bala mu maa ñëwal moom xaal xaal ki njëkk a wax mooy jinne xaala ifritun min a jinne ana aatiki bii qabla an taqum min maqaamika wa inni ali la qawiyyun amin mën naa la ko andi bala ngaa jóg fii waaye lan foo kan moo ko mujj قال التي عنده علم من الكتاب علم من الكتاب آه، علم من الكتاب واو اسرار يبرين فاي كوم ما انا اتيك بي قبل ان يرتد اليك طرفك قول الله بو دنج من جروم فك متر غود نيا يات واي بروم انديكو شي خف قب انديو واي رفاني لا يبال روحاني كو جيلي تي غيسون li ko jëli moom mi ngi toog fi mu toog demul ah. kon ko jëliwu ko dëgg la dafa am ay tur yàlla yu mu woo ah. wax ko ña nekk ak tur yàlla dem andil ko ko xefe xippi waaw kon bu fekkoon jinne ko indi kon jinne jee koy indi ndax man na lool waaye alimun min al kitaab la wax ana atik bi xam ne yarta ilik fala maar a mustaqan indo hmm. qaala asa min fadli rabbi li yabluwani a ashkur am akfur allahu Mhm. kon loolu mooy lim li muy jëriñ mhm. waaye limi lool nga noonu incha mhm. allah tabaarakallahu sëriñ euh, tafsir comme li ñu wax léegi ci li nga xam ne asrar dina dina dina jëriñ waaye dina lor daruruhu wa manfaahu ayuhuma akbar maanaam euh, euh, njariñam ak lii lor waaw xam naa daal li ëpp solo lii njëriñ li ëpp ah. parce que mag ñi ngay gis Sénégal gi ba mu daj amul ko ci amut asrar amul ko ci xamutoon ñëpp ko xam daan ko jëfandikoo itam su lu dagan waaye ñi ko xam di ko jëfandikoo si lu bon itam lu bon lañ ci am xam nga num melam mm-hmm. comme paaka mm-hmm. paaka bi nga yor nii mm-hmm. boo demoon sa kër ren di xar togg ko lekk njaboot yëpp ree ah. waaye boo si jëmee nit si kaso ba ngay ah, te benn paaka bee ko def dëgg la waaye sa niya moo ah, paaka bi sa niya moo bi ren li waaw xar mi waaw lakk dagg ko ñu togg lekk njaboot gi kontaan ñaan moom moo jam nit ki mu dee ini ni yéene bi wute yéene bi bi nga allah di ko mm-hmm. wirda mm-hmm. sa yéene bi nga ci allah bi mm-hmm. yow yaa ko xam waaw kooku nag yaa sa istimaalu asrar fa lay jëw yi jëfandikoo kii am na bi ci lim ci allah waaye am na koo xam ni ci allah est-ce que kon yooyu si ngay xamee mi ngi mel alquran alquran ba yàlla Mm-hmm. tabbat yada abi lahab mm-hmm. ba léegi loolaa ngay continuer ah, waaw tabbat yada abi lahab mm-hmm. ki xam asraar si loolu lay jël jumu sa niitu sa loola alak ki mi alak uh-huh. ndax waxu yàlla ja doggantul ba léegi tabbat ja waaw uh-huh. alam nashrah laka sadrak ba léegi ma ngay continuer ah, waaw ki xam asraar si alam nasrah boobu lay jël ubbi sa nit ki uh-huh. inna fatahnaa laka fatan mubiinan ala ba léegi ma ngay daw alxuraan leer gaang fa wax jàng fa sanction ki xam asraar loolu lay jël niitu sa def la muy def demet demet ba lépp jeex. kon nit ki tëju mën nañu am fu ñu jaar ba ubbi ko. jeex même bu ñu ko tëjee alxuraan jeex. est-ce que. alxuraan ngay jëfandikoo ubbi si nit ki waaye alxuraan ngay jëfandikoo tum tëj ci nit ki. allahu yàlla gis nga turu yàlla wi ngay liggéey. Mm-hmm. am na ko xam turu yàlla wi muy ko tëj. Mm-hmm. di liggéey turu yàlla mu tëj la. na ko xam turu yàlla wi ngay liggéey moo la ubbi naa la andil misaal nga xam ko. Mm-hmm. caabi bi nga ubbee bunt bi moo koy tëj. dëgg la benn caabi bi la ndax da nga indi benn caabi. moo koy ubbi moo koy tëj. est dëgg la. lampe bi nga taal ni contact. benn ah. contact la ndax da ngay wuti benn contact moo ko taal waaye moo ko fay. dëgg la de. kon noonu la. ba ci asra. waaw asra noonu la mel. am na lu ciy jëriñ am na lu ciy lor am na luy ubbi am na tëj waaye yow mi koy jëfandikoo attention soo ko xamul. man hmm. la tëj léegi nga kër kër fi nekk fekk yaa tëj sa bopp. Hmm. sëñ Cheikh incha allah. tabaarakallahu kon nag <laughs> moom euh, ku dégg rek di nga xam euh limu wax yëpp dafa am solo te limu wax lambatu ko ndax lu mu xam lay wax euh, Serigne Tafsir cham nek ci parcela seni unité 12 nek ci terminus Tataay nek ci wetu école euh, publique macha allah mun ngeen ko ci 77 370 26 88 77 370 26 88 wala 70 707 18 18 70 700. 207 18 18 wala 78 207 95 95 mun ngeen ñu ba baal rek nak bañu paré émission bi ñu soga euh, woté Insha Allah taala mu melni ni ci euh, ci lolu ki nga xamné dafa tëju wax nañ wax nga mën nañ ko ubbi ndax ben buntu bi bi caabi bi di ubbi moy mm. tëj waaye ki nga xamné tamit euh, la ko ubbi mm. nekut ci loxom hmm. fokk mu juk ngir gëstu ji xam kan moko ko am a ubbe ndax nit danay tejo ci turam mm-hmm. nit dana ñak xam turam mm-hmm. nit dana ñak xam saraxam mm-hmm. nit ñak xam bisam nit ku nek dafa am lo xam da nga am sa bidiw bop am sa rawaxaanu bop am say saraxi bop lo xam boko jëfëne ko ubbe ko am waye so xam da ngay tuñ tuñ rek waaw legi pour ñu xam euh, euh, euh, yoy ci mom mm. ndax dafa am fu ñuy jaar ci xawaati mi mom borom mom il faut borom ñew ñu ñu am amna ay tour wu nek dang koy peese xam lan la mom bu fa ñoo ñëwee rek xam danañ xam kii lanam la mbiram lan eh, bi waaw. ndax tur wu nekk dafa am ñeenti mbir yu ci am. Hmm. dafa am lu ñuy tuddee naar yu. Hmm. turaabi yu. Hmm. maa yu xawaay yu. koo xam ne turam ndox turam ndox la. ak koo xam turam suuf la. ak koo xam turam ngelaw la. ak koo xam ne turam safara la. yii nag bu dajee ci nit ki nga mën a séparer ban la ci borom bokk. nga xam. est-ce uh-huh. waaw il faut nga xamee kii fan la. tur bi ngay liggéey ndax mook yow a dëppoo. ndax tur wi ngay liggéey naar wi la ak yow man naar wi la ndax tur wi ngay liggéey trois bi wala ak fan nga ko war a liggéeyee. waaw mm-hmm. léegi ki nga xam ne day liggéey tur boo xam ne ci euh, maam naar wi la safara la. Mm. moom mu nekk euh, euh, hawa. waaw mu ngelaw ngelaw ngelaw. waaw ngelaw ak safara mën na ànd ndax ngelaw dana dana yëkkati safara. Mm-hmm. waaye li bon mooy di liggéey nekk nekk maa yu di di liggéey naar yu. tubaab lan lay jël waaw. wala nga am soxna soo xam ne maa yu yow ngay naar yu. dafay am jigéen dafa am koo xam ne li ko tëj mooy jabaram. am na wax li ko tëj mooy jabaram bi mu ànd ak jabaram moom dafa nekk maa jabaram nekk naar yu mm-hmm. wala mu nekk naar yu jabaram nekk maa bu ñu àndee rek du dem parce que safara ak ndox mënuñu ànd su ko defee danañ def lu nekk waaye duñ dem mm-hmm. te fekk ba ñuy duggante yoon newu soon def lu nekk ba muy dugg si jëkkër ji jëkkër ji am lu ne mm-hmm. waaye ba mu duggee si moom rek la daan la daanu dafay am te loolu balaa ñu ci dugg war nañ ko xool ba xam lan la tabaarakallah ba tey ci loolu euh, si ñu doorte waxtaan ñëwal nañ ci wàllu euh, xawaatim hmm. leeralal nga leeralal nga ñu ko hmm. mais ci biir xawaatim ndax dafa am aadat euh, waaw xawaatim am na ay xawaatim ndax dafa am lu ñu tuddee musallas hmm. musallas nag jëluñ lépp ndax juróom-ñeenti bët la waaye dañoo jël benn di lon bi tuddee ko musallas am lu ñu tuddee murabba fukki bët la ak juróom benn waaye dañoo jël benn di lon bi tuddee ko murabba am lu ñu tuddee muqammas benn di bu nekk جروي بدلة أم تقول لي تدي مصدس أم تقول لي تدي مصبح أم تقول لي متشع أم تقول لي معشر أم نسأل لي تدي ألف بيتين برينا كوي واحد أم ألف بيتين فكرة واحد يكون يهرب قام نسأل لي كده في بس كده دين أو بنيك جن جن ل لبده فنيك تي ألف بيتين تي مير جن دي لني عشرة آلاف بيول ديل أبو نيك جن نيكلا ما تقول ألف بيتين كم نيجي تقول ما ديل أبو نيك جن نيكر الله أكبر waaye am na ñoo xam ne dañuy bind benn xaatim na alphabet laa yor fekk dañuy wax leen ñaar fekk alphabet nañ koy duggee ak nañ koy génnee ak xaatim ya muy am ak la muy duggee yëpp bokkul sa xamoo ko waaye nit ñi léegi comme asraar jànguñ ko mm-hmm. nit ñi itam seen yoon neew si li ñu bëgg mooy borom mbooloo mm-hmm. ku am daraja mm-hmm. ku mën a wax loolu ñu dem si ñoom rek seen yoon neew ci waaye xam asraar déedéet bokkut loolu mooy xawaatim benn bu nekk am looy liggéey amna bo xamne bi wal walu wala do nga lay liggey mm. amna bo xamne malu mahabba la diggante ñaar nit mm. ñu and pour len rawati rawatina surtout ma yoonu murabba mm. li ci xaaliban li ci ëpp limi liggey moy li ci gëna bari moy bolé amna bo xamne bi nak mom dafa nek lepp la sa nek moy musallas musallas mom dafa liggey lepp mm-hmm. daraja mahabba mengale lepp ci musallas ku ko xam man ko def mm-hmm. waaw kon na khatim dañu wuté waaw khatim dañu wuti xaatim ku nekk la liggey liggey am na benn mag boo ñëwaan si moom xam mu mas mm-hmm. daf lay jël tëj li si nekk fay la xaay bu dul bu doy mm-hmm. jox la aaju na lëggéel ma ko xam na ne aaju bi nga lëggéel dafa aju ndax dañuy wax ne mu xammas ku ko xam ak musallas mm-hmm. bu la neexee nga dem jamono dafa yàqu léegi ba nit léegi rek asraar problème bi si am mooy damay wax ne léegi nit ñi dañoo dem a dem ba jëf jëfandikootuñ ko jox ndax jàngatuñ ko waaye asraar ki ko xam xam ko lu ne mën ko si def incha allah bu bul nit andil bu téye rek ci yow la da kaa تبارك الله ليغ نك بو نيت نيوي نان لا نيو خامي موم مانام كوم ني نيو تودو ليغي تي والو عددام داخ دنج كوي جار تي روحاني ولا قدامي وا خمغا حرف ييب دا فا ام ليم حرف ييب دا فا ام تيم مثلا تي مثال نيو لا الله الف بن لا لام فان وير لا بنن لام فان وير لا ها بي جروم لا واي نونو مل نون بوكو كونتي ياكان ناخ داي بوكو ليمي ليمبي داي نيك 66 واي 66 جوي مان نكو واتيات داي نيك 12 est-ce que waaye loolu dem dafa ngay demee nag ba xam demet demet ba ba ngay xamé ki lan la japp yoon yi dañu bari wa dafa bari am nga am nañu ñoo bi ma sam ay oustad yo dañuy pirate <laughs> <laughs> léegi lu tax amul benn yoon rek ndax ñëpp mën ci mën mën cee déet kon xam-xam du xam-xam day doy waar di xam-xam bu meloo noonu mhm. kon doo ñëw fii di ndax da ngaa dugg si oto wàcc wàcce ba ak si fii <laughs> amul benn yoon ki jógee ko fële mhm. day dugg si oto ñëw bu fii keneen ki jógee ko kenn bokk sa morom foo jógee ko ak léegi ki ci yor benn ki ci yor ñaar nag moom nan lay demee waaw kooku moom ki yor benn ñaar loolu lépp si dàpp bi ëpp am na boo xam ne xaalib ak maxlub dafa am na koo xam ne bi sa tur wi lii nar yu may xaalib si yow mhm. loolu nga wara jëfëndiko mhm. am na kon ma yu may xaalib si yow mhm. am na kon hawa yu may xaalib si yow am kon tuba bi non la demee bam jeex rek demet nit ku nekk am lu not si yow loola not si yow nag loola moy sa mbir sa la nekk deug la waaw nga gis ko xam dafa yomb mer lool fekk nar yu la gis ko xam loko def du mer fekk ma yu la da am lu xamne mum mum lay tud dafa jaxaso dafa bi dafa jël ci bi jël ci bi jigen ko xane bi dafa nek ku bax ko xane am lu ben problème am ko xane bi li jukkam moy du taxaw fenn fekk la lum bayiko lu mu dugg rek dana sa génn. Mhm. jigéen joo xam du toog fu mu toll day dox. waaye mhm. yooyu nag dañ koy téye dañuy téye loolu. Ah. fee dañ koy réglé kenn ko nekk lañ téye ba nga xam dem. kon ñeent ñeent ñeenti yoon yooyu yëpp. bu ci nekk am na fu ñu mën a jaar ba saafara ba saafara ko incha allah am wér

mën na dañ maa ngi koy ñaan mu fexe ko ak Serigne Tafsir ki nga xam ne itam xëy na bari na yoo xam ne mi ngi ci kanamam te xamul ban yoon la war a jaar moo xam naar yu la moo xam hawa yu la moo xam euh, euh, euh, yooyu yëpp bu ci nekk mi ngi ci moom te xamul lan la mën na jox ko ak Serigne Tafsir Thiam ci 77 370 26 88 ci loolu Serigne Tafsir wax nañ léegi ci asraar ndax dafay lor wala dafay jariñ mm. lii lor ak yi ban moo ci ëpp ñaata itam ci xeetu xawaatim moo moo am asraar ba tey hal lahu tasir fi lxawaïj ndax am na jeexital ci wàllu aajo moo xam par exemple kal mahaba wal jama wal tafriq wal rizq wal jah wal ihlak al zalim wal wilaya wal sultaan wal ziwaaj wal ibtaal wala taysirul umur ndax am na jeexital ci wàllu cofeel wala moo xam boole ñi nga xam ne dañoo tàqaliko wala ci wàllu wërsëg ki wërsëgam tëju hmm. wala bëgg alak nit hmm. wala ki yàlla dénk wilaaya hmm. wala wàllu nguur wala ñiy sëy moo xam diggante bu neex wala mu naqadi wala yàq njabar walla mbir mu te loolu daal ndax am na jeexital ci loolu waaw sëñ Cheikh xam nga li nga laaj ni asraar looloo ko tax a jóg asraar dafay fekk lu jafe mu yombal ko fekk ku wàcc mu yëkkati ko ñaati nit ñoo wàccoon daaw dégg sax seen tur waa asraar xëy rek ñu jóg si kaw turu yàlla du nit ka yàllaa ko def turu yàlla wu borom yor moom la sikar maam Cheikh Omar Fouti daf ne dawaamu zikrullahi fillahi lillahi yanaalu maa yashaau inda allah mooy ki ma jàkkaarloo ni waaw waaw góor bi tey dawaamu zikrullahi fillahi lillahi yanaalu maa yashaau inda allah wastaqiloo billahi yaa ibaadi an kulli xayrin bila nusqaan واستقلوا بالعلم ثم العمل لا نفع فعلا بخير عمل لولا واخ نينا يعني كي تقو تود يالا تا يالا رك تخ لوم بغيس يالا من نكون دكرا كون تود يالا فيغا جيل ديكو سيكار جيختال كي مي جيختال سي ياو موي لي مي نياكا ديف موي دا فلاي نياكا جوخ تشوفيلو يالا تشوفيلو يالا بول يالا سوبي نيب سوبل تاي ما دي لامي مين مثال انا ndax gis nga mam seigne touba da gis nga mam alhadji malis ndax ndax gis nga mam cheikh mourfoudi mi waye da ngi leena bëgg te yalla tax deug la te defal ñu dara waye bëgg gi leen yalla bëgg bëgg gi bëgg yalla mo tax nga bëgg leen Abu ni gisoko ko dang ko bañ. waaw dëgg la Firawna gisoo ko waaye danga bañ lu wal mhm. mhm. moy bañ gi bañ yàlla. waaw tudd yalla gi ngi tudd yalla nak ñod digim lay ñod di si nga bëgg yalla ñoo di gim lay ñod di si yàlla bëgg la. moy mhm. tax bu yàgg nit ñi bëgg la loolu tax na tudd est-ce que. bu yàggee nit ñi bu la bëgg jëriñ la. Cheikh Omar Fouti bo demé Sirima daf ne. man zahar wilayatu wajibat khidmatu ko dem ba sa wilaya fen liggéey la warna kon ki dem ba wilayam feeñ nit ñi force ñu liggéey la. force ñu bëgg la. force ñu ànd ak yow. Mhm. du seen coobare yàlla ko wax. Mhm. boo demee ci benn hadis yonent bi alayhi salaatu salaam nee na booy lëggeel yàlla ba yàlla nangu yàlla dafay wax malaaka yi nekk suuf neen seet leen di diw sàng bëgg naa ko mhm. yi wax ko malaaka yi nekk ci ba mu àgg sa asmaan juróom-ñaar ñu li ko ci géej gi tafli ko ci teen yi ku naan bëgg la est que nga dem ci xabru yàlla bu faatu amee ay nit ñuy dund dëgg la xabru nit yàlla bu faatu yaatalal lool. ah waaw ñaata xabru fii nga gis ñu fay sotti loo xam ne bi ña koy ña koy jël di ay nit say dund ñaata xabru. ah dëgg la de. loolu gis nga boo demee ziar foog nga làmb ah, sax ah te borom faat na ba pare di la dund yow mi dund. lu tax loolu. jaamu gi mu jaamoon yàlla. tabaarakallah nekkal gi mu nekkaloon yàlla. tudd gi mu daan tudd tudd yàlla. Mhm. kon turu yàlla dafay yëkkati nit. Mhm. waaye ñàkk tudd yàlla gis nga yàlla dafa wax ci alquran ne. Mhm. heure boo ma bëggee. man fàttali fàtt nga fàttaliku ma rek. boobaa man danaa la defal lu ne waaye soo ma fàttee hmm. xam nga yàlla boo ko fàttee rek nasullah fa ansaawum waaye faskuru ni askurkum soo ma fàttee ma fàttali waaye soo ma tuddee du dama lay tudde askurukum fil malay hmm. dafa lay daf lay fàttaliku ci lépp hmm. askurukum fi raqaay wa fi shadaay bu tar amee mu ko la bu yombal amee mu ko la wa tatma innu qulub bi zikrillahi tudd yàlla ngay tudd yàlla mooy nooyal sax xel الله بذكر الله تنمي القلوب لما تود يالا سي لاخول دي نويه واي كي باي تود يالا ومن اعرض عن ذكري فان له معيشه تنكا والله ونحشر يوم القيامه اعمى قال ربي لما عصرتني اعمى وقد كنت بشيرا قال كذلك اتتك اياتنا فنسيت وكذلك يوم تنسى القران لا دغلا bàyyi ki nga bàyyi yàlla mhm. fàtte gi nga fàtte yàlla si la mhm. yëpp fàtte kon dafay faj aaju mhm. dafay tax nit ñi bëgg la lu teqali ko day boolowoo ci alquran gis nga nit yàlla comme borom asrar yi dañoo jël aay yi nga xam ne aayatu jami lañ allahu laa ilaaha illaa huwa lajmaanakum si loolu si lañ jël boole si ñuy teqali ko jëkkër jabar ju teqali ko famille bu teqali ko lu teqali ko dafay am ñu boole ko si loola boo seetloo léegi famille ñu bari na léegi yoo xam ne jeex du jeex moo xam doomu bàyyi yëpp yëpp dafa teqali ko ndax lu ko waral mooy wallu iñaan wàllu soxor mhm. wàllu fiiraange mhm. la rawatin nag jigéen ñi da ngay mhm. takk jigéen ñi indi mu teqal laak sa ndeeg sa bàyyi ne génneel fi uti appartement ndax loolu ñàkk waajal ba bala ci wàllu asraar wala déet waaw soo commencé ñàkk ñaan ah. borom nit ñi léegi li ñu gëm rek mooy am na xaalis fekk xaalis lu tuuti la mën a def xaalis li mën a def mooy lekk ak nan tëdd ah. tuuti la mën a def dëgg la nit ñi léegi seen kër yi moom lañu gën a bëgg seen njaboot gi da ngay gis kër ku ci def ay millions mas sa def si njabootam benn junni dëgg la benn junni ma su ko si njabootam benn dëgg la ta yow pourtant kër gi limi rafet rafet pour sa njabot gi la mhm. kër gi limi rafet bo fi jógee ko ëllëg nga fi nek suñu baxul dañuy fay kër gi day tass deug la ñaat nit ñoo nek tribunal mhm. seen problème mu fami mhm. ta bay seen bay bi ñuy bay gañu bay na ay milliards yo xam ne mën nañ ciy waye mënu ñu dund léegi ndax li waral moy seen bay li mu moy alal mu am njëriñ ñaan lu doom yi ñaan lu ñaan lu leen mag ñi dañ daan lu nit xalwa ngir seen famille mhm. ngir seen doom dëgg la ñaan yàlla mu jub ñaan mhm. yàlla mu baax tabarakallah am nañu benn laaj bu ñuy laaj laataa ñuy tëj mhm. ginnaaw loolu rek ñu wax mbokk yéen a ngi déglu seen émission kàngami Sénégal tey nag ñu dalal fi ko xam ne muy mooy Serigne Tafsir Thiam nekk ca parcela Assainies unité 12 nekk ca wetu terminus Tata yi foofu ci wetu école publique bi numéro téléphone am mooy 77 370 26 88 370 26 88 le 70 707 18 18 70 707 18 18 le 78 207 95 95 78 207 95 95 bu ko il y a une aussi pharmacie Chifa. waaw pharmacie bob lan lay. pharmacie bi garab yi Sénégal lañ def. Hmm. li nga xam dañ koy faj yëpp dañ ko fay parce li ko waral mooy ñun asran mooy suñu cosaan waaye nit ñi dañuy ñëw di la jàmbat feebar mm-hmm. di la wax ne man def naa traitement ñetti at mm-hmm. def naa traitement te ñu jàng ko bu yàgg mm-hmm. xam ko xam-xam lu jàng bu yàgg ndax suñu waajur ñun moo ñu jàngal asran laa jomar ci am ñëpp xam nañ ko gafri ah, ñu xam ko ci asrar xam ko ci lépp kon bu ñëwee fekk nit ñi di jàmbat loolu te ñu mm-hmm. ngi Dakar il faut ñu defar loo xam ne dañ koy dimbali nit ñi mm-hmm. ñu defar pharmacien boo xam ne ci gën a gaaral nga xam ne mm-hmm. lépp lu nekk mu jarab la mooy lu bopp métti métti ak lu mu la métti métti boo fa ñëwee incha allah bu ñu la joxee suñu tegtal dina wér lu biir métti métti incha allah boo fa ñëwee bu ñu la joxee tegtal dina wér lépp loo la allah yàlla dana ko faj xale bi nga xam ne dafa nekk di tuur ndox wala mag mi koy def am na ay fajam yu fa nekk ah. loo xam ne dafay tuur ndox incha allah kiy mm. jëfandikoo lépp loo xam ne bi baaxul daganu ñollu mm. am na ay tegtal lépp dañ ko gaaral nga xam ne bi alquran mm. képp ku tëju li ñu lay wax ni yëpp dañ ko bind teg nga xam ne incha allah a ñun incha boo ñëwee lépp luy sa ittee lépp loo bëgg buñ la xoolee ba xam ne lii la ittee dañ xam incha damay wax ne faj amul tappale ndax nit ki bu wéree xam ne wérul xam na yaakaar naa ñemoo dem rek wax ne nit ñi mën naa def naa incha allah ñem wax li gën a doy waar léegi mm-hmm. mooy góor ñi léegi xale yu ndaw ñoo ñoo tële lu jaaxal na ma léegi xale yu ndaw ñoo mënul mm-hmm. dara mm-hmm. xam nga dañoo foye seen bopp xam nga dañoo foye seen ndaw ay doy na waar léegi te daal xale lu góor a a ah. a ah. a ah. a a ñu puus ko rek <laughs> tabaarakallaa kon mbokk ah, mu sen émission euh, Sénégal hmm. Serigne Tafsir cham comme ni ko unité 12 ci terminus ci téléphone 77 370 26 88 77 370 26 88 70 707 18 18 70 707 18 18 wala 78 207 95 95 78 207 95 95. Serigne Tafsir lan la ñuy mën a yokkalaat ci waxtaan bi ak kàddu yu mujj yi ngay tàggatoo waaw li ñuy yokkalaat daal mooy man waxuma ne mën na lépp déedéet mm-hmm. ndax jaam lompañ la mm-hmm. yàlla moo man mm-hmm. inal insaana xuliqa daifan ida massahu charru jazwaan wa isa massul xayru manwaan kon nag waaye nit ñi nañ fagaru bañ a bàyyi seen boobu am na koo xam ne bi tey daf lay wax rek ne lu ne mën la araam na lu ne mën araam na xam wut sax lu araam lu dagan xam xamul si dara yow mi koy déglu toog am na koo xam ne bi moo ma ñëwal sama bopp na ma man sama situation dafa normaloon mhm. ma daan jëfandiku am am daan daan ñaan yàlla mhm. daan sangatu benn waaye ñëw wax ma ba ma tuur lépp keroog bi ma ko tuuree ba léegi laa tëju léegi lu mujj dem si nit ñi di ñaan ndimbal xam nga ñaan nit ñi ndimbal wax dëgg yàlla loolu mu mu mu nga nekk musiba mhm. kon nit ñi bàyyi xel sa bopp gis nga bokkaale yàlla lepp lu yalla sant mm. ta muy lo xane bi lu islam la mm. nga bul sa bokkaale yalla jang koy def dëgg la de waaye ji ni ngay lekke ci bi ngay togu yalla dulo ko dugub ji ngay yalla ci yonam newu si mm. ndox mi ngay ya yonu yalla newu ci li sa adat yi la sa adati bop bopp ko nangu la ko xamee waaye boo sa yonu yalla newu sa mm-hmm. sa adat yi nga jëfandikoo ya xam nang ko man defé bam ba mu baax ceeb bi do tagu yalla nakoy koy Dede yonu yalla newu ci mm-hmm. dula wax ni ngay koy toggee du wàcce wàccut fen ci alxuraan non kon nit ki na nga fagaru ar sa bop ar sa njabot sa sey fexel ba arku. ko ba nga xane bi kenn du ci bu yàq mm. ndax boo bàyyi sëy dafa mel ni sàcc mm. nit ñi am na ñoo xam dañuy wër di sàcc góor ñi dëgg la sàcc yàq mm. waaye sàcc jigéen ñi dañ koy def kon su ko defee na góor nañ nañ góorgóorlu waaye cosaan li yëpp mooy looy def na fondement ba nekk yàlla nga li gën a mën a fi dimbali ñu su baax suñu xarit bi fekk ñuy Amadou baax a nañ bàyyi tabaarakallah kontaan nañ baax a baax Serigne Tafsir Thiam ñu ngi koy jaajëfal baax a baax baax moom lañ dalalon tay ci seen émission bi di Sénégal ñu fas continuer ak moom itam inshallah euh, suba itam mom la and ak ginnaaw suba mom lañuy and ak lepp ci seen émission Kangami Sénégal mom nak mi ngi nekk la Parcelles une unité 12 ci terminus Tata Ba numéro téléphone am 77 370 26 88 77 370 26 88 wala 70 707 18 18 70 707 18 18 ou le 78 207 95 95 78 207 95 75 95 kon nag mbokk yi ba suba ak jàmm ci seen beneen euh, numéro ci sen émission bi nga xam ne mooy kàngami Sénégal asalaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakaatuhu